kase ñu fay la fay ma fay ko nga naa ma waxal waxal rek mooy lan. Mhm. làmb dañ koy jaay waxuñu fi lu fi dépassé nit. wala wax wax ma day manqué de respect nit. dañuy mhm. wax pour làmb ji neex. mais waxal rek may wax bu yàggee ko nit ñi jëpp ñu aussi. Mhm. lépp luñ fi wax ñiy seetaan sax xam nañ ne wax dëgg yàlla dañ koy neexal ba muy neex moom ni mu mel ni tey signature bu génnee boo ko gisee boo ko rombee. mais day sëgg doo la xool man c'est la même mais bu ñu nekkee fii. xàkkoor la amul leneen loo xamante ne dañ fi wax loo xam day dépassé nit. parce que mu ngi wax maa ngi wax dépassé wu ma ko. par la lépp ci làmb la amul leneen. man ni ma ni ma mel ni noonu laa mel ci làmb. damay wax di jëf mais moom li mu wax nee dina la nappaaje. non te bële paase da ni ko woon dinaa la dóor ba nga tëddal sa bopp mais keroog dóoroo xeexoo bërewoo mu daan bi nga Tafatine bëgg c'est le moment ou jamais. non Malick daanoon na ma loolu moom. seen waaw mais revanche dafay am d'accord leer waa sama revanche laa jël si pour daan ko dem su ma yoon ah loolu mhm. moom laa koy wax nagu ma déglu dynamique bi ma nekk nii moom du moom moo may tee quoi. nekkoo ci dynamique voilà baax na. yow yaa newul ci dynamique. objectif bi. changé wul xam nañu leen. waaw objectif bi changé wul mooy bawal dañ leen ni roi la ñu bëgg. mais tey bala ngaa jël roi bi foog nga jéem a jaar ci kawam. non du problème mu ay roi ñoom seen man problème bee moom dootuma ci wax quoi. Mhm. ku bëggul bëree. waaw mais kii yoon la pour jaar ci pour dem jëli roi bi yow it yoonam nga pour mu jëliwaat roi bi. même bu yàlla defoon ma daan ko itam xam nga. Mhm. bu yàlla ne damay bëri titre roi des arènes dama koy bëri bu ne du am du am man loolu laa gëm quoi. mais mhm. ci sama kanam kii la Balla Gaye 2 incha allah. Balla Gaye moo nekk sa kanam. oui. Balla Gaye 2 musoon na nekk sa kanam. waaw. Balla Gaye 2 nekkaat sa kanam. waaw lijjanti ko daan ko sa yoon loolu la. Balla lijjanti la daan la dem yoonam loolu mooy objectif am de. non moom xamul lu ñu may lijjanti. Mhm. xamu ko. Mhm. alors Balla danga wax léegi wax bu am solo mooy euh, booy daje ak tafatin daf lay jaral nga daj ay coono. Mhm. am na sax ñu waxoon jamono yi ni Balla génn na dem na Sénégal dem na Paris. fa mu demoon gars yi teg ko fa ay coono ba ba ba ba mooy loolu da nga demoon foofu wala da fay waaj a dem pour gën a mel état de forme bi nga xam ne gars yi xamawoon nañ la ko dem ak barki dem. Malick. Mhm. sport àdduna noonu la. Mhm. moo àdduna ñu ànd. da ngay toog dix sax doo am combat toog deux ans wala trois ans nekk suro. Mhm. léeg-léeg nga toog dajale ay combat et victoire di daal. cest à man ci li ma war a nekk rek laa nekk. maa ngi fii Sénégal. mais lii moom fi téye mhm. ma pare maa ngi. INSEPS ngay delluwaat. incha allah bu neex yàlla. te combat bi rek moo la ko jaral parce que INSEPS dafa cher. bu dul combat bi sax bu dul combat bi. Mhm. combat bi nee naa la li ma la wax rek entre la mais damay dem pour liggéey li nekk sama kanam dama ko bëgg régler les temps ma régler ko incha allah. Mhm. li naqari woon sa ay supporters ci jamono yooyu ci jamono yi ñu génn loolu nga bëgg feral seen rangoñ une bon fois. waaw xam nga samay supporters tellement que dañ ma bëgg. Hmm. am ci man cofeel am ci man yërmande. Hmm. bëgguñu dara dara dara dara lu ma metti moo taxit ñoom ba ma leen xalaatee damay yokk jom moom li mu wax noonu sànq ñi mu bëree ñoo ma doole ñoo ma mën ñoo ma dàq bëri gën na maa yokk jom. Hmm. bu ma def cent dinaa def deux wala sax ma double ko. na ma mën a jàkkaarloo moom ba xam ñi mu doon bëree ñoo doole ñoo ma dàq bëri ci Fafaar incha allah. dafa mel ni piqué na la au vif maanaam laal na sa orgueil laal na sa amour propre ba tey jii loo doon def da nga ko bëgg a yokk. incha allah ci